ëllëg le 15 am na ay marches yoo xam ne dinañ ko organiser ci l'ensemble du territoire national muy Sénégal wërgël këpp déposé nañu ci 14 euh, ci 46 département yi daanaka marche la yoo xam ne yu ñu fas yéene organiser la pour dénoncer li nga xam ne moo am ci réew mi bu ci njëkk mooy ñu jàpp te tegul ci yoon te ku jàpp ni acteur politique kese la wala Pastef kese la ndax nga sa bopp ndax saa su ne ñu jàpp fi ab journaliste wala ab ku bokk ci société civile bi wala keneen ak keneen ñaareel bi waral marche yooyu mooy justice bi nga xam ne ñu ngi koy instrumentaliser di ko fooye ngir rek di ko jublu ci régler ay compte ñi nga xam ne bokkuñu kàddu ak Macky loolu dàkk fii ñaar yi nag ma wax ala kulli xaal dañ koy amal mitin bi dinañ ko amal incha allah rawatina nag marché yi parce que Macky moomul réew mi de moom saa su buggee jóg dem du laaj autorisation lu ko neex mu dem fu ko neex mu dem su dajalee ay nitam wax politique bëgg a gëmloo nit ñi turi tournée économique moo ko tax a jóg tournée économique lan moo ci dajale ay nit Sédhiou naan leen li ma ñàkk Sédhiou métti na maag liggéey leen loolu ban ban rapport la am ak tournée ay nitam chaque jour ñu def meeting fii ci biir Ndakaaru ak ci biir réew mi ba pare ne opposition nag naa leen tënk ba kenn du def meeting loolu jeex na fi bu soobee yàlla le 15 bëgg na ko bañ na ko dans les 46 départements du Sénégal dina am manifestation sans avec ou sans autorisation ma wax ko mu leer te man mii maa joxe ndigal en tout cas ku bokk ci man dégg ma man maa joxe ndigal bu ñu leen joxee autorisation marché leen bu ñu leen ko joxul marché leen bu ñu amee ku ñu jël si nañ ma jël si parce que ci suñu euh, suñu constitution la ñu bind ni nit ñi am nañu droit rassembler wu manifester wu marche kenn demandé wul autorisation dangay ngay da ngay yëglu interdiction bi exception la te dañ dañ ko war a motiver mais chaque jour ñu ne trouble à l'ordre public mais yi ñu manifester yi ñu autorisé dafa mus am trouble à l'ordre public fan ngeen mus a gis manifestation bu ñu autorisé ñu jege si ñu ne nit ñi xeex nañu wala toj nañu oto wala lii <coughs> saa yu amee rek interdiction moo ko andi kon ñu autorisé Macky Sall lay waxal Macky Sall ci boppam laay waxal ndax préfet yi ay suq lañu sous préfet yi ay suq lañu ñuy sant ñu def Macky Sall lay waxal autorisé nga autorisé woo bu soobee yàlla marché dina am dans les 46 départements du Sénégal Macky dootuñu ko may dara jeex na 12 mois yi di ñëw lu ko mbir mi jaral jaral nañu ko parce que nag yenn yi ñàkk fulla la.